Euh, point de presse bi c'était juste euh, pour euh, leeral yenn yenn problème yi nga xamante ne actuellement mu ngi am si sunu commune bi nii. bon problème yi dafa commencé bëri actuellement dañoo am sunu benn jigéen boo xamante ne tey mu ngi tudd Dieynaba Ndiaye gendarmerie woolu ko pour déglu ko démb déglu nañ ko tey ñu woolu ko pour arrêter ko te dañ ko war a wax mu leer c'est parce que dafa am ay action yi nga xamante ne am ñu bëgg ko jël takal ko ko té lépp nak kenn rek mom mo nekk ci ginnawam mom moy état du Sénégal li tax ñun ñu indexé état c'est parce que ñun dañoo agressé trois fois ñu déposer plainte trois plainte mo ngi ci bureau commandant di nelaw ñetti plainte yo xamante ne suñu ay nit dañ leen gañ yaq suñu ay auto té loolu kenn def ko udul wa coalition benn bokk yaakaar bi nga xamante ne Assome Diatta moo ko plainte yoy mo ngi ci bureau commandant mu téye préfet yëg na situation bi nu mu demee c'est parce que benn bu ci mën a am rek woo nañ ko wax ko situation bi nan la demee ba ba mu yëg ko euh, sous préfet bu Malika yëg na nu mu demee le commandant de Kër Massar yëg na nu mu demee kenn si ñoom ba léegi may waxee yow ni intervenir nañu si situation bi nga xam ne moom moo am avant-hier sunu euh, garde rapproché yi wàcc dem di ñibbi ba ñuy ñibbi en cours de route ñu attaqué leen saccagé suñu oto jàpp leen ñeneen ñi dañoo daw c'est parce que dañoo tirer utiliser sen arme à feu amna ci ño ñoo dañoo nek sen biir yor ay arme à feu utiliser sen arme à feu dàq ji leen yenn boy daw mu dess kenn ko xamante ne ponkol la mënu daw mom mo taxaw résister ak ñom ñu japp ko door ko ba nga xamante tay tey fi may waxe yow ni amna problème mënatul woon kii ñu pomper ko fofu non ba jëm ko neutraliser lolu après ñu japp ko yobbu ko sen biir siège téye ko fofu non bayiko ci auto bi jël seeni arme ñom yu ñu yoron teg ko ci kawam jël seen machette yi ñu yoroon teg ko ci kawam nee ko dénoncé ni Dieynaba Ndiaye moo la yónni moom moo la yónni pour nga ñëw attaqué ñu kooku nee loolu du ma ko def bay laa yow mi diin ndax doo leen ma gën a gore Dieynaba Ndiaye yónni wu ma yéen a ma jàpp agressé ma jàpp ma dóor pare gaañ ma sàcc sama portable di ma wax loo Dieynaba Ndiaye ma yónni loolu du ma ko wax du ma ko def ñu ne ko ah ba doo ko def ñu jàpp ko foofu dóor ko ba muy bëgg a dee pare si loolu ñu mënate ko yóbbu ko gendarmerie bañ demee gendarmerie gendarmerie moom ko téye asom jaata jël image yooyu transféré ko procureur de la kii procureur euh, Pikine Seydi procureur jël dossier yooyu noonu tay ñu téé ba légui may waxee ni boy baangi gendarmerie ñu téé amul benn motif buñ ko mëna a mënuñu wax ni li lañ ko jappé mënuñu wax ni ki la agressé mënuñu wax c'est parce que lan la mom agressé nañ ko togn nañ ko ba paré téé ko fofu non ñun de toute façon boy bi défar nañ ko médicalam bindal nañ ko plainte am ñoo ko téye di xaar quel que soit lu mën a xew ndax dañ koy déféré wala dañ koy libérer ñom ñoo xam nañ jël sen responsabilité kooku buñ ko bayé ñun dinañ topat ñi nga xamanté ñom ñoom ñoo def ndax suñu directeur de campagne fi lañ ko japp agresser ko tabasser ko à mort jëlal nañ ko médical defaral nañ ko lépp def nañ suñu plainte mu ngi si bureau kan la indexé ko directement ba fi may waxee yoon kenn demul jëli waaj c' est parce que lan la si camp pouvoir ñoo war a tey créer a moom moo war a ñëpp mettre ñëpp au même pied d' égalité mais defuñu ko tey euh, la personne de ba Ndiaye ñun ba ñuy romb suñu caravane di romb buntu kër euh, ki ñi naan dafa dafa dañoo taal kii bi ñun romb nañ si buntu këram di ko wax jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo toogoon ak moom loolu metti na leen ñu romb foofu noonu ñoom ñu dem jël essence dem taal seen kër ñëw di indexé maire Dieynaba Ndiaye c'est parce que lan la moom lañ def cible moom la c'est parce que lan la coalition bi da leen a tiital da parce que lan la mbooloo bi ñuy àndal di génn si dëkk bi moom moo leen tiital caravane bu ñu génnee ñun fay ñu kenn nekkuñu fii di toppatoo kenn di la naan kaay ñu dem bu ñu paree ñu may la 2000 ñu may la 5000 joxuñu kenn dara nit ñee ñuy toppatoo yàlla tax

menacé wuñ ko buñ ko dem provoqué c'est parce que lan la bu yaakaaree doore état état day jeex élection yi day weesu Macky Sall dàq ko mu gouvernement bi dara yokku na ceeb bi yokku na avec ses erreurs mu bëgg a ñëw naa nañ jox suñu commune des na dem ñun duñu ay classam ñun duñu kiyam ay nit ñu dem si média yi pour ñu dem di di yàq suñu der moom tuuti na bu di yàq suñu der ndax moom bu xamoon lan mooy kër Massar waa dina xam ne fii cosaan la fii dëkk cosaan la du moom mooy ñëw di yàq der ñun suñu ay maam fii lañ nekk fii dëkk lébu la est-ce que bu amee lu muy wax na dem wax fi nga xam ne foofu la jógee donc ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ni lii nii ça ne fait que maire Dieynaba Ndiaye dinañ ko bàyyi si nii wala si nee ñoom ñi jël intention dem laq seen kër nañ dem di gën di seen problème bu ñu yërëmul seen i njaboot maire Dieynaba Ndiaye dafa yor njaboot comme ñoom maire Dieynaba Ndiaye koo xamante ne saa yi boo xëyee yaa ngi dimbali ay jaamu yàlla yaa ngi dimbali ay nit yaa ngi fexe ñoo xoolee jaamu yàlla tey ni ñu nekkee dans leur bien nga mën di leen jàppale di def social si li nga xamante ne noonu la ko mënee bugul nit xool nit ku sonn du kooku mooy jël alalam di fay nit naan demal nga lakk kër jàmbur ndax kooku dafa yor njaboot kooku c'est une femme très sociale loolu loolu moo ko may pouvoir bi mu am si kër Massar bi ba mën ko diriger en 2019 fii la nekk le président Macky Sall elle a perdu plus de 80 et quelques millions sur les élections de 2019 à cause du président Macky Sall même un merci de Gouko. tey taxaw changer de camp Il la coalition de sa bop, tey moom moo tax intimité ni, a ko di ko naan dañ équipes. dañ ko bëgg a jëlee Il elle s'est préparée xam terrain politique la Nek. maire Yaram Ndiaye xam na ni bu prison du du du dugg si terrain politique donc tey fu mu ne nii bu lu leen neex nañ def man mii di wax ñoom sax pare naa nii bu ñu leen neexee tey tey tey tey tey nañ ma ñëw jël si ñu dem ñu xam ne maire Diame Ndeye du moom rek kay dugg si kaso bi ñun ñëppay ànd ak moom des bi kaso bi loolu nag bu leer seen bopp maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf. Unité TV. Unité TV.